Euh, problème mu candidature au niveau de du parti PASTEF je ne parle pas maintenant en tant que militant de l'APR mais en tant que politique tout court. Mm-hmm. qui est sur la scène depuis 1980. Mm-hmm. dund ay expérience yu bëri. xam nga sànq maa ngi doon évoquer le boycott des élections législatives de. de 2007. 2007 mm-hmm. ça a profité à la coalition Sopi 2007. ñu am 131 députés. significative dafa boycotté woon. opposition ba fa nekkoon amuloon doole ñoom ñëpp réunis 19 députés la ñu am terewul législature bi sur cinq ans déroulé wu normalement Assane wax na ko léegi. Mhm. en 2019 waa PDS bi ñu fi taxawee naan. Mhm. c'est Karim Ourien Karim Ourien. affaire yi di ñëw temps bi di gën a kii mbir mi di gën a jege ñu naan leen yéen du ngeen réagir ñu naan ñu naan c'est Karim Ourien fan la ma ju bokk ñu. nag mën naa ko comprendre man. je pense que au niveau du PASTEF il y a il y a des cadres yoo xam ne dañuy réfléchir ils sont jeunes mais am na as tuut lu ñu xam ci politique. gis nga li Assane junj léegi c'est que jamono yi ñu toll nii déclaration Diallo Diop dafa xaw a prématuré puisque bu waxoon loolu. Mhm. tout le PASTEF adhéré. mais mais de l'autre côté dañ naan ah mais gars yi kat ils ils acceptent que Ousmane Sonko. maña bañ a nekk candidat. absolument kon nag loolu lu mën a nekk la. puisque ñoom accepté nañ ko ils ont accepté un plan B donc période bi ñu nekk nii bu nekkoon seen xel sax wala mu nekk résolution bu ñu def à l'interne. mënaguñ ko siiwal. saa <laughs> aussi il faut le comprendre. ça doit rester secret. du dëgg mais nag je ne pense pas très sincèrement. que bu fekkonte ne dem nañu ba Ousmane ko mënul nekk candidat que le Pastef saborde wu c'est-à-dire bañ am candidat xam nga dañu nekk comme assan ni nga ko waxee nii dañu nekk dañu nekk ci politique il faut envisager tous les cas de surtout nag Pastef dafa am adversaire boo xam ne il s'appelle le pouvoir pouvoir tuutiwul waxuma Sénégal rek de. mais c'est partout pouvoir yàllaa koy jox taxe yoo xam ne le pouvoir permet de sa maintenir au pouvoir booy xeex ak pouvoir il faut nga am stratégie du frontal doo catégorique sur tous les points foo war a reculer reculer foo war a réfléchir jaar ci beneen yoon jaar fa foo war a jaloge dialoguer mm-hmm. loolu laa bëggoon yokk par rapport à ça